Thank you. Tengoku Jarama Taringoku Jalam na binda nyigido Ogiro mwana gira demwan Ohalata kawadani Orokata kanafani njai Sallallahu alaihi wa sallam Jefengoku oh. Jefengoku oh. Mbàkke fa cooñ jaay xaw ma li nga wute yaay wen gore a du paase yaa baax Aliou Ndiaye gàmmi laa Ya yayada motale nga ko ter nga buur ter nga badoolo nga say di mi fala ku am jël ku la ñàkkil wuti la Jolof jolof def na lycée yi tabax na hôpital tabax na boulangerie yi tabax na jumaa tabax na jàkk yi soo limee damay juum njaay étudiants yi xam na la njaay social bi xam na la njaay jaata njaay alaaji bi la jaata njaay sa baay soxna Fatou Abdou Moussa yaay bete bete bee nga ni gariban yaay mbay nga Ali Ndiaye yaay Mohamed Ndiaye waa kër Ali Nguy Ndiaye ana ngeen bu fekkee ni yaakaar ngeen ni mën na nekk taxaw ma xool Soufflez la victoire est à votre portée levez-vous et saluez le président Ali Ngouille le du yi jug le kaw ah si vous pensez que c'est possible si vous pensez que c'est possible ñëpp ñi ni le président Ali Ngouille il est bien là Tamaniwa Sénégal waxuma la coalition Tamani la grande coalition Mesdames, Messieurs, Son Excellence Monsieur Alingou Ndiaye, cinquième président de la République du Sénégal. Mesdames, Messieurs, en ce 7 octobre, ici à Dakar, nous ne ki nga xam dafa ba jàng jotee am ay lijaasam samba am ay lijaasa jotee fu mu dem jël fa premier ñu jox ko ay raaye ci àdduna bi ñu wolu ko ci réew mi wóolu ko fépp ci réew mi daal di koy woo ñii daal di jóge Daara Jolof ñii jóge Jolof ñii jóge Kas ñii jóge Tambacounda ñii jóge Yëmbal ñii jóge Géejawaay ñii jóge ca Jurbel ñii jóge Jolof ñii jóge Waalo ñu ne ñoom ñëpp ñoo ne dañ la bëgg a fal président de la République fekkee ne ànd ngeen ci jóg leen taxaw yéen ñëpp ma xool ñëpp dañ la parole mesdames, messieurs, Président. son excellence, monsieur Ali Ngouille Ndiaye. mbokki Sénégal yi nekk Sénégal ak yi nekk diaspora suñuy xarit suñuy am di jàmm suñuy sympathisant maa ngi leen di nuyu di leen wax asalaamualeykum aleykum rahmatulahi taala wa barakatu musidɓe tedduɓe bandiraɓe windere Euh, président aly ngouille ndiaye wi salmini on salmini bibe leydi wonbe be do e nder leydi he e wonbe caggal leydi salminango assalamu aleykum wa rahmatullahi taala barakatuh. le 25 février 2024 le 25 février 2024 o wi so allah jabi, li elof ndiaye di wax guleet ko oh wi ko wolof ndiaye wiyata ko buleet sénégal dana organiser élection te président bi tok du ci bokk o wi so allah Jabi sénégal ma wat organiser élection président Gonda Hande o tawetake loolu nak o wi non. Da fay tax dum takat kenn ku nek ci yéen neɗɗo fo e moɗon ne teye kartam yo nangu kartal muɗum jàkkaarloo kenn ku nek ci ñun te bëggal leen dara mon fofu fof huccondire mo nganndanɗaa hoore ma tawa ko jiɗɗo mu deglu ko o heɗoo dum. Deglu lim leen di wax o hedo ko halante ko ndax loolu sabu Dum moy am solo ɗum woni ko waɗi fayida ko waxe so haalani ɗum ngen xam ngandon ndax ñi fi nekk ñëpp di wax sabu wonɓe ɗo be kala be pop kenn ku nekk xam nan la goota hen foof ene anda man ngeen ràññee oɗon mbaawi heɓtinde kuy wax pour falu kaalowo sabu laamaade ak kuy wax pour liggéey sabu e kaalowo sabu gollaade li ñu wax ko haalate ko ci sénégal e sénégal ak ci sénégal e sénégal na dañu koo gëm koko guma sabu yàlla dafa def ci suñu jaar-jaar e nder ndewmi takel ba ñu juddoo gila ɓe jibina ba de ɓe jàngi ndax sénégal gii sabu ndi ɗo leydi la ñu jàngee ɗo ɓe ba ba ba tëj téere yi haa poti fonction euh, euh, nu mu école publique la ñu école publique o jàngi xam nit hoɓe nganndi yimɓe ɓe kam seeni kam seeni bëgg bëgg hombo anndi ko yimɓe ɓe njiɗi kam seeni soxla hombo anndi caɗeele mumen moo tax ɗum taki bu yàgg ba tey gila ko ɓooyi haa hannde xaaruñ ba nege ni eɓe e paɗaade haa jooni li ñu intéressé rek intérêt mumen mooy nu ñuy sénégalais yi holno be mballirto leydi ndi pour fat seeni soxla pour safrude caɗeele mumen bu ñuy wax sénégalais yi nag seɗen mbiye sénégal naaɓe ɓee noon dañuy wax sénégalais ɓe mbiyat sénégal ñi ɓurɓe wasde ɓe ba ñi ëpp wërsëg e ɓurɓe ɓe jogaade sénégal yi gën a nekk ndaw sénégal naa ɓurɓe wonde suba yi gën a nekk mag e haa e ɓurɓe wonde mawɓe góor ñi ak jigéen ñi rewɓe ɓe e worɓe ɓe sénégal yi fun munta nekk ji rew mi ak bitim rew sénégal naaje kala to gonɗa ko ɗo e caggal leydi ak xeet buñ mëna bokk e leñol ngol jeeyɗa pop ak ak waaso buñ mëna bokk e kala leño hinde nde jeeyɗa ak diine jun mëna bokk e diine ma jeeyɗa pop sénégal yooyu la ñu waxal sénégal ɓen naaɓe kaalde ñu xam ne yooɓe ngandu ñun ñëpp bu ñu boolee sunu doole enen foosi en ndendanii doole men ma wax leen sama yeyne o wee o haalan on anniye mum danañ mën a yëkkati sénégal mbele ɓamton sénégal ba fu mu munta toll kala ɗo sénégal tolni kenn ku ne xam ne ne gooto fo anda ñun waa sénégal ñoo ko liggéey ɗum ɗo ko sénégal naaɓe liggéey ɗum samay jaar jaar o wi ndewmi takel muɗum ci sama liggéey privé e golle muɗum e o jeeni hoorem sama liggéey public e golle muɗum laamuyankooje tax na ma xam o taki li nga xam ne lii tey ɗum woni ko gandanɗa moy sohlay sénégalais yi ɗum woni caɗele aynaɓe ɗe waw faami ɗum te li jiitu ci sohlay sénégalais yi ko ɓurtide e jojjaji sénégal naɓe moy karange woni yimɓeɓe ne ndaxte saabu cheikh anta diob cheikh anta diob wi ñun ñëpp xamon ko ci bari xam-xam foof omba jeeya e ɓuri ɓe ɗo waxon na ne o wi o wiina karange o wi ndenagu yimɓe moy jiitu yokkute ɗum woni lawol ɓamtare gadanol kon saabu karange boobu ɗum noon ndenagu ngol leñ bëgg ɓe jiɗi sénégalais yi sénégal naaɓe yëkko nda tina ɗum ci seen dëkkuwaay e koɗorle maɓɓe ci seen bopp e koye mumen ci seen alal e jawɗele mumen yëkko tina ɗum ci li ñuy dundee e ko ɓe guurata ko yëkko tina ɗum ci seen i wergi yaram e cellal ɓalli mumen yëkko tina ɗum ci seen i liggéey e golle mumen lépp liggéey boo xam ne bii sénégal kala noon gollal gat sénégal warna koo joxee sénégal en wawi weerude ɗum sénégal ñooci wara jiitu sénégal na poti haynade heen ndax am réew saabu leydi kenn duko tabax bo dékkul ce réew ma hay gooto wawa ɗum maade a wonal neɗɗo leydi ndi yallah def na nag saabu allah waɗi noon xam ngeen ma oɗon gandi on dañi kankoaangi ngeen ma on dañi ɗum duma wax lu ma narut o layata ko mijaaki duma dige lu ma narut o layata ko mijaaki o digrata ko wawa moo tax ɗum taki ma jàpp ne o nangi élection présidentielle du 25 février 2024 oɗo élection garo 25 février 2024 bu neexee yàlla so allah jaɓi candidat candidat La bëgg Oui de o Andagien. wonde ànd ak yéen ànd ak yaada ak yéen y moon le 25 février 2024 ha ñande 25 février 2024 ngeen falma amminen ɗum lii ñuy dem nag o wi ɗo ɗo paaɗen noon élection la ko élection wiyete élection élection moom kañum du décret wona dekkere élection élection yeenay fal onon lamminta yeen onon yeen yore seeni carte onon jogiiɓe carte nekk ci kër yi gone galleji moon nekk ci euh, bitigue yi gone bitigue aji nekk ci chantier yi gone chantier ji yeenay fal onon lamminma delsi wadde leen o wi on kadi déglu leen keɗo ɗe ñileen ni ñuy wax kaal haalanoɓe kenn ku leen ci wax ku ne kala kaalanowo hol leen démbam ak tayam yo wat ƴeewee hankimi hannde pour mana xool ndax man ngeen def protection ëllëg sabu nganndon mbele ko mbo waawi safrude ɗe caɗeele ñun nag xamante nañ o wii ɓen kamɓe noon xamante nañ bu baax a baax eɗen nganndondiri o yeeɗen nganndondiri mane o wii sénégalais yi sénégal naaɓe fuñ munta ne kala ɗo ɓe ngoni xam ngeen ne ràññee ngeen oɗon nganndi oɗon keɓtini jeunesse bi lay waxal sukaaɓe ɓe o haaldata nee naa da ngeen a bari o wii da ngena bari ji rewmi odon kewe leydi he yettude kar machallah kar machallah o wi waye oy kono lolu ɗum ñun dañte waro sukkundiku oy kamɓe poti ko pour yëkkati suñu rew jopade hen waruño def rek ne ɓe mbawa wat dafa disti suñu bopp ba munu ñoo sigi degumu yen oy onon ma yëgal len ko tay o haalan on hande ken ëppu len ci nit ñi hay goto ɓura on yimɓe ken ëppu len ci fichier électoral bi hay goto ɓura on fichier électoral he ken ëppu len ci ñi voté hay goto ɓuura eno wotoɓe he xam ci dara omo andi hen hunde ndax ma organisé élection présidentielle 2019 saabu élection présidentielle 2019 kam kam waɗimo organisé kon ɗum noon lima bëgg o yiɗi lima bëgg o yiɗi yéen ndaw ñi onon sukaɓe ngeen jël lima leen wax o wi keɗo ɗon ko jàpp ci ànd ak man

waaye xamaa ne fii moom gis ngeen fi lu ngeen nettali asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatuh salamata soppulo jeni yaay usman njaay yaay ndey suke njaay soppulo jene sama xarit سيدي مي سيدي مموي بزيرو موسان جاي سيدي امين دسو ما خاري الله جوين جاي سيدي ني سونا سو ما خاري الله قلن جاي نيكو باخلا مملا كده جون جون محمد جوب سيدي رابان جاي باي محمد باي خادم رسول اتصو كله جاي سيدي اوصو سو ما خاري الله دلنگه به امید barkeem wala dogata wala sarata sama jirwaan ka puram biram pendan jeme bugar bigre sagu